رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان رمضان رمضان رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دور li nga xam ne moom la sëriñ bi yëkkati mooy sëriñ Muntaqa jëm ci liggéeyal sëriñ Touba xam nga dañuy wax université bi waaye liggéey yi li muy liggéeyal sëriñ Touba lépp a ngi ci biir université bi daa gën a ne ci kanam rek waaye liggéeyal sëriñ Touba ci lay xëy ci lay gont loolu nag moo tax eh, bi nga xamee ne yëkkati na kàddum ginnaaw bi mu toogee fas yéene liggéeyal sëriñ bi képp koo xam ne kii eh, sëriñ Touba mooy sa yaakaar ak ku mën a doon sa buntu war ngaa jóg yëngutu fekk ko ci liggéey boobu loolu moo tax sëriñ Abbas dajale njabootu borom daaru Muxti gépp ñu taxaw ànd ak moom ngir ñëw ànd ci liggéey bi barkeelu bi nga xam ne nag moom la ñu doon dajale eh, boobu ba léegi moom lañ doon indi eh, ziyaare ko teg ko ci loxoom eh, mu mel ne baykat boo xam ne dafa dafa dafa bay ba ba far màngu léegi dañ fiy jógee nag dem ruujewaat fas yéene liggéey waat bu ñu jógee fii dañuy daal tàmbaliwaat nga xam ne noonu rek lay bindoo Euh, nuy sant yàlla bu baax na ci bi nu yàlla mayee nu bokk ci Serigne Touba waaye suñu bunt di borom Daaru Muxti te ki ko fi nekkal di Serigne Abbas doon koo xam ne kii ni ko ay magam euh, daan defe noonu la ko defe mooy dafay ànd ak mboolem njabootu borom Daaru Muxti euh, ngir lépp loo xam ne ñi ngi koy def ñu ànd ko ak ñi war a àndal ñëpp loolu day tax sa xel gën a dal te itam day tax itam li nga yóotu itam nga xam fan nga jaar ba àgg ji loolu moo tax mu boole ñu ak Serigne Mame Thierno moom Serigne Cheikh Awa Balla nga xam ne eh, dafa waxoon ci kanam ñëpp ne leen bu Serigne Moustapha Absa fu mu war a teew te teew fa mooy jëwriñ ji nga xam ne eh, defuma ko ko moom Serigne Moustapha Absa eh, yàlla moo ko def ci ci nekku baayam ba léegi mu fu war a dem nag teewu fa Serigne Mame Thierno Serigne Cheikh moo fay teew moo tax mu boole ñu ak moom ak Serigne Cheikh Assoupé mi nga xam ne moom la dénk village bi biir Darou Mouhty ak bokk yi ñu àndal yëpp sëñ xaadim docteur mbooleem kër yi eh, njabootu borom daaru ñëpp seen njaboot a ngi woon ci biir mbooloo mi ngeen gis noonu loolu la sëriñ Abbas bëgg muy dund ñu xam ne eh, yoonu sëriñ Tuubaa noonu rek la li war a jiitu day jiitu li ci war a topp topp ji te ku safaane loolu eh, bi ci gën a yomb gis te lu muy misaal mu yomb moo di ne oto yi bu ñu jaar ci kaw yoon ku ci jàdd yoon wi nga war a jaar rek boo tuut yaa indi yaa indi accident bi moo tax li li war a jiitu lu nekk la jiitu la ca war a topp topp ci noonu lañ ko noonu lañ ko noonu lañ ko war di doxale beneen ba ca des nga xam ne mooy li ëmb lépp nag mooy euh, li nu booleeg sëriñ bi muy buum gi nga xam ne moo nu yeew suñu digg ak sëriñ bi muy sëriñ Touba mooy ndigal baatu ndigal boobu ak jëfe ko nga xam ne duñu yem ci wax ko rek dañ ko war di jëfe waxtu boo xamee ne nag ñàkk nañ koo jëfe moom euh, euh, la muy jur walxiyaasu billah ndax jëfe gi mooy li nga xam ne moo lay may li nga bëgg tey ak ëllëg ñàkk gaa jëfe itam mooy li nga xam ne moo koy xañee te loolu moom Serigne tubaab bind na ko fu nekk wax na ko fu ne ko nag loolu mooy tax euh, kenn ku war na lu mel nii bu xewee nga ubbi sa xel ubbi sa bët xool ba xam ndax yow lii ab seetu la ndax yow euh, lim bi ñu fi indi euh, jërul ñu di ko tudd kiñ ko indi xam na ko yàlla xam na ko te yelloo na lu ëpp loolu kon léegi kenn ku ci ne la nga fa def xam nga ndax yow Euh, def nga ca dara wala defoo ci dara wala la nga ca def euh, da nga koo xeeboon waaye sunu borom moom gis na ko ndax sunu borom kii def ci moom doo def lu ëpp doo def lu yées am na euh, benn taalibab Serigne Touba bu baax boo xam ne su ma ko tuddoon yéen ñëpp ngeen xam ko jëfam ci biir dëkk bi ju rëy rëy la dafa waxoon ne Serigne Touba nit koo xam ne jëmm joo xam ne soo koy soo koy soo koy soo koy liggéeyal la nga séentu ci moom mooy aljanna ëllëg doo ko defal ab néeg ba di ko yéem yaakaar ci moom aljanna doo ko defal ab néeg ba di ko yéem muy baat boo xam ne bu rëy la boo xam ne ñu bari mën nañ caa jël di ko jariñoo te loolu mooy li nga xam ne taalibe bu nekk loolu la war a jàpp kon dañoo ñëwoon ngir feddali si ak taalibe ci turu Serigne Abbas mboolem ko aju ci borom Daaru Muxti ñu teg ko ci loxo mu teg ko ci loxo loxol Serigne Serigne Mountakha ñu wëlbati ko di déglu ndigal fii ñu nekk nii tey tàggoog moom léegi ak li mu nu wax te ñi fi toog ñëpp ñu bari jàpp nañ ne mosuñu dégg mu wax kaddu yu mel noonu yaakaar naa ne loolu kum doy dara du la doy waaye nag ñu ñaan yàlla sunu borom euh, mu may noonu fekkewaat ko te bu nu dellu si waatee mu raw ñi nga xam ne dinañ dëppee di nuyu ñëpp sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة ليتك دوما قريب